بسم الإله ينمو الآن boo ko ñamee di nga tàqamtiku ñamal seet café gi ñëpp doon xaar yegsi na seen café Touba Al Amin waa kër Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Xadimu Rasul gérant ba di Serigne Lamine Mbacke café gi sel te wóor te neex lool café gi ñu saytu saytuwaat ko càmbar ko càmbaraat ko ñu defar ko ci anam yu mucc ayib sell et cent pour cent naturel waaye lépp nag ñu defar ko ci dëkk bu sell bii di Touba seen café Touba Al Amin am na sachet bu 2 kilogramme sachet bu 1 kilogramme sachet bu 500 grammes waaye am na sachet bu 250 grammes tànn sa bu la neex la ñu jaay la ko nag ci njëggu xéewale waaye li dàqati mbokk yi mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen di jënd ka jaayaat daw si leen gaaw ngeen fekk ko fii ci Touba Guy Mbind wala ngeen ko ñun ci numéro yi ñu jox leen ko ngeen di jox seen ay clients ndax café Touba Al Amine dafay jaay en gros ak en détail kon waa Sénégal waa bitim réew ak fu waay mën a ci àdduna a la ci Afrique ci sous-région bi Gambie Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud ak fépp foo Afrique mbaa Europe mo France Italie Allemagne wala fépp fo mën Amérique mbaa Asie boo leen jokkoog ñun ci suñu ay numéro ñu jox len seen ay commande inshallah. seen café Touba Al Amin wa keur Serigne Mohamedou Lamine Bara Khadimou Rasoul ngeen mën leen fekk fii ci Touba Guy wala ngeen mën ñu jot ci suñu ay numéro commercial 77 632 30 30 wala 77 032 30 30 wala 76 632 30 30 kon daw su leen gaaw ngeen fekk ñu fii ci Touba Guy Mbind ngeen def seen ay commande seen café Touba Al Amin seen jaaxle jeex na abli tilawa ma al halawa habni diraya ladal adai